téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu man mbégte ak contenté retrouver leen sur les antennes de la 7 dans votre émission avocat émission bi nga xam ne moom mooy traiter les questions juridiques les cas mais aussi l'actualité de manière générale tey nag ñu bëgg ñëw ci benn secteur maanaam le secteur du transit fii ci Sénégal parce que gis nañu ne yàggul dara li nga xam ne mooy la douane donc génn na ay mesures yu bees lu mel ni DEMAT lu mel ni PROMAT lu mel ni DPI donc teg ko ci li nga xam ne moom mooy moom mooy secteur bi mais nag gis nañ vraiment de l'autre côté yi nga xam ne ñoo nekk ci ci domaine bi vraiment di yuuxu di indi ay problème ci li nga xam ne mooy mooy wàll bi donc looloo tax sax tey ñu bëgg si def benn émission bu am am solo surtout ci wàllum transit bi parce que vraiment ñi nga xam ne ñoo nekk ci ak secteur bi aussi ci wàllum transit bi vraiment ñu ngi yuuxu di wax vraiment ne war nañu defaat beneen taxawaay ci li nga xam ne moom mooy secteur yi surtout ñoom ak seen relation ak li nga xam ne moom mooy la douane ñu ciy dalal ki xam ne moom mooy Ibrahima Khalil jën nga xam ne moom mooy chargé de communication UTPS maanaam Union des transitaires patriotes du Sénégal tey moom la ñu dalal bëgg waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom mooy mesures yooyu nga xam ne laa douane jël na ko mais aussi ci problématique yi nga xam ne donc les transitaires ñu ngi koy dund fii ci Sénégal donc Ibrahima Khalil ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay mon ami Amadou. di nuyu euh, tous les téléspectateurs de cette TV. Mhm. di nuyu sa cameraman yi yi. di am mbégte ak contentement vraiment dajeeg yow tey fii pour ñu waxtaanee nga xam ne mooy coono ak difficulté yi nga xam ne moo nekk ci secteur bi nga xam ne moom nga doon lim. muy euh, port bi douane bi transit bi. transit bi ci loolu la ñuy ñëw directement cest am na ay mesures yoo xam ne ñi nga xam ne mooy l'administration des douanes teg na ko bi ci njëkk je pense a taxaw muy pro promat bi te tey jii bu ñu taxawee d'abord ci ci promat bi tey jii yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci li nga xam ne mooy secteur bi tey jii promat bañ ko tegeeg léegi lan ngeen ci gis ci njariñ wala vraiment coono yi moom moo gën a bëri euh, merci Amadou posé nga question am solo muy euh, le programme euh, de la modernisation de l'administration douanière ñu koy wax promat Euh, muy lu ci dara taxaw seetlu nag parce que promat bi rek ça fait deux pour cent sur les importations maanaam boo indee sa conteneur yow ak valeur bu nu mun a toll da ci ciy fay deux pour cent loolu administration douane moo koy moom te li ma jaaxal mooy douane dafa nekk démembre ministère du finance et du budget te képp ku xam luy loi de finance xam ne ne ministère yëpp dañuy am budget donc douane bu fekkee ne dañoo bokk ci biir ministère du finance et du budget te ministère bi di programme tout ce qui est modernisation dans toutes ces structures te douane bokk si gisuma lépp la la la pertinence que douane di créé waat beneen fonds di ko tuddee Promat ñu koy imputer ci importateurs yi muy nekk ay yeneen charges locales yoo xam ne dafay répercuter sur sur le marché local. promet bi nekk na loo xam ne vraiment c'est-à-dire amoon na yeneen charges yoo xam ne nga xam ne moom mooy les importateurs. Mhm. ak ñi nga xam dañuy liggéey donc ñun ñu andiwaat beneen. ñu greffé waat yoo xam ne pour ñoom seen pour seen modernisation maanaam. te ñoom ñu bokk ministère des finances et du budget ça veut dire ñoom normalement c'est le ministère qui qui devait gérer tout ce qui est programme. pour la modernisation de l' administration douanière. est ce pour yokk un peu les recettes de l' état aussi taxul. non mais bu fekkee ne c' est pour les douaniers ça veut dire que yokk le recette yi ces 2 pour cent appartient aux douaniers ça n' appartient pas à l' du Sénégal. promette boobu laay wax. li li li ma ci gën a li ma ci gën a jaaxal mooy ñun ñi nga xam ne ñun ñooy commissionnaire agréé en douane ñun ñoo koy collecté ñun ñooy lebal commerçant yi ñun bu ñu amee ay problème mu déficit kenn fayuñu ñun ñoo koy sentir. ñun ñu am problème ak percepteur ay ay retard de règlement en fin exercice il peut ramasser plus de quarante à ci programme bi ñun ñi nga xam ne ñu ñoo koy collecté di leen ko jox mais ñun obligatoirement ñu waroon boole ci biir programme bi. am li ci metti mooy gis nga importateurs yi nekk ci réew mi yëpp programme boobu ñoom ñoo koy financé daf fay nañ seen droit douane ba ba ba pare de dugalaat bi beneen charge de deux pour cent boo xam ne pour la mondialisation des douaniers maanaam seen confort ñoom ak seen bànneex. importateurs yi nga xam ne droit de porte yeeg taxes yi leen waroon teg yëpp tegaat nañ leen ko droit de refaat ci pour cent ñun ñi nga xam ne ñooy commissionnaire agréé yi di ko ramasser tous les jours léeg-léeg nga lebal benn commerçant mu am problème mu fay la ñun dagg nañ ci suñu xaalis ñun versé ko ci ci promote boobu il il devait être il devait être que ce promote là au moins douane génne ci au moins benn 0,5 pour cent ne kat commissionnaire agréé yi nga xam ne ñoo ñuy collecté le montant boobu ñuy dem dem ay quarante cinquante ba 60 milliards la l'année au moins ñu jël 0,5 pour cent yi sax jox ko commissionnaire agréé. ndax xaalis ñoo koy ñun ñoo leen koy collecté leen ko jox parce que importateurs yi ñoom fay nañ seen droit de ñu yemoon ci loolu ñu dugalaat beneen 2 pour xam ne ñoom pour moderniser bànneexu confort douanier yi comme ñun ñoo koy collecté ñun ñoo am problème ak percepteur ñun ñoo am problème bu ñu bu ñu clients yi fayul. mais au moins ñu jël pour cent lii kat en fin d' année nañ ko jox commissionnaire agréé yi ne ñoo koy collecté comment ñun ñëpp am nañu code PPM. bu ñu duggee ñun ñu déclaré ku déclarant commissionnaire bu nekk am na code PPM soo dugalee code PPM li nga gis déclaration yi mu def ci année bi yëpp nga calculer la totalité des déclarations génne ci 2 pour cent yi su fekkee ne commissionnaire bi dafa am ay problème au niveau de l'administration douanière ay contentieux yu mu fa fayul nga dagg ci xaalis bi fayal ko bu fekkee dafa am ay retard de règlement au niveau du percepteur muy nekk xaalis état nga dagg ci fay li ci des tu lui fais un chèque au moins ñoom dina mën dina commissionnaire dinañ mën a dugg ci beneen cadre social boo xam ne ubbeeku ubbi yeneen entreprise wala mën a def yeneen mbir yoo xam ne xale yi nga xam ne dañuy génn ñu mën leen absorber au moins récupérer le, le taux de chômage mais imaginez cette manne financière c'est l'administration des douanes qui l'utilise à lui seul et payée par les importateurs qui passent par nos mains ñoom ñu di ko lekk je pense que na am na solo yokk li nga xam ne moom mooy charge importateur yi mhm. nii bu ñu nekk ci réew moo xam ne vraiment nekk na réew moo xam ne mën nañ ne importateurs yi presque ñoom ñoo ñoom ñoo réew li nga xam ne moom mooy import ne aussi. mais tout à fait Amadou parce que gis nga importateur. Mm. loo ko yokkal mu yokk ko ci prix de vente am. et en fin de compte ki ki ki ki ki ki kan mooy subir. Mm-hmm. en dehors avant avant d'être des des journalistes des douaniers des transitaires on est des consommateurs. yow da ngay dem di jëndi man damay jëndi. donc bu fekkee dañu jël 2 pour cent yooyu xam ne yokk ko ci pour uniquement le confort des des des te ñoom en retour mënuñu jël manne financière boobu mën ko partager ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal je demande à l'État du Sénégal de pouvoir contrôler cette manne financière parce que c'est extraordinaire yoo xam ne dañ koy jël et heureusement que sax trésor public lañ koy versé trésor moom moo koy imputé di ko yónnee douane et je demande au gouvernement actuel de faire une enquête approfondie sur les les les 2 pour cent des de de pour cent yooyu aussi on on exige la corporation. qu'on nous donne au moins les 0,5 pour cent pour que ñun aussi ñu mën a secteur bi ñu nekk ñu mën ko defaraat mën a mën mën a am conforme mën a am modalité ñu mën a absorber chômage. ñu ëppiwaat li nga xam ne moom mooy moom mooy problème mais yaa ngi koy yaa ngi koy wax ne nga 2 pour cent boobu noonu dafay dem exclusivement ci li nga xam ne moom mooy les mooy les douaniers mais est-ce que am nañu certitude exactement que ces 2 pour cent là dañuy dem ci les douaniers c'est-à-dire est-ce que amul yeneen yoo xam ne aussi tamit l'administration des douanes mën na ko ci jël pour gën a ñoŋal liggéeyam aussi. ba tey ci douaniers la jëm. <laughs> même bu fekkee administration douane da ci jël pour def ci ren liggéey. Mm-hmm. ba tey ci ñoom la jëmaat parce que lépp il s'appelle PROMAP. Mm-hmm. programme de modernisation des activités des douaniers. Mm-hmm. de l'administration douanière donc ak fu mu mën a dem seen xaalis la ñoom ñoo ko utiliser te c'est nous les consommateurs par le biais des importateurs qui paient ces taxes-là et que nous en tant que commissionnaires agréés c'est nous qui collectons ce montant pour que la douane puisse avoir cette modernisation donc il va falloir que le ñu xalaat ko les dividendes yi nga xam ne 2 pour cent yooyu ñoom dañu ko ci tegal nañu euh, defal que 0,5 pour cent yi jox ko commissionnaire agréé te lool ci suñu combat la bokk. dématérialisation boobu noonu wala promesse boobu noonu du tey pourquoi booba wax ci li ni mel xam ne mooy ouverture boobu noonu ubbi li nga xam ne moom mooy 2 pour cent yi. Mhm. yéen di dugal leen ci au moins. mais bu nekk dafa am heure am. Mhm. on a moment donné que promesse dafa waroon a am début am fin. Mhm. bu ñu si c'est pour trois ans. ñu ne d'accord mais bañ ko defaree ba léegi amul bañ ko amagul fin si c'est pour moderniser tout simplement l'administration douanière war na am deadline mais loo xam ne dafa nar te ñun ñoo koy collecté on a on a jugé nécessaire que ne cette fois-ci il faut ñu toog xoolaat comment ko bàyyi ak ñoom aussi. di ko collecté est-ce que l'administration euh, dina dina nangu li ni mel. mais du ko nangu parce que xaalis moom kenn nangu ku coppati sa xaalis. mais ñun ñëpp ñoo bokk ndey parce que ñun ministère du budget et des finances moo ñu ndey ñun ñëpp ñun agrément yi ñu am arrêté ministère la am c'est le ministre du budget moo ko signé ñoom démembrement wu état ministère du budget et des finances la moo moo ñu ëmb ñun ñëpp comme moo ñu ëmb ñun ñëpp dafa ñu war a toog ñu toog si une table waxtaanee promate bi xool dividende yi nga xam ne moo ci ku nekk war ci mën a am ci secteur bi ñu séddale ko am am réew kenn du ko kenn du ko kenn du ko paccoo rek jëli la neex rek da ngay toog xool li nga xam ne moo war a nekk nga teg ko ci kaw table bi ku ci nekk secteur bu mu war a am lam ci war a am am ko mën a développer secteur am pour que ñeneen mën a dugg parce que douane am nañu concours bu ñuy jaar pour dugg mais ñun aussi à travers les écoles de formation xale yooyu di ñu ne leen insérer dans la vie active il faut qu'on ait di récupérer deux pour cent yi leen ko jox ñoom ñu koy féetewoo ñun ñu koy collecté ñun ñu ñuy bloqué ñu ñu am problème ak percepteur ñi nga xam ne alal ji ci ñun lay jaar ñu leen koy jox mënu ci am minimum on ne pas un pour cent on demande que 0,5 pour cent sur l' du territoire ñaata maison de transit ñoo fi nekk. mais dafa même bu nekkee 10 milliards dañu ko war a jox. parce que cette financière là tey boo ko évaluer en fin d' année ça peut aller jusqu'à 60 à 40 milliards 50 milliards. donc cette manne financière là promat bi dañ ko war a xoolaat toog du euh, des finances et du budget que ce pro ce volet-là mu toog ñu xoolaat ko. ou bien su fekkee ne mënuñoo toog ne carrément ñun mënuñu see jox. nañu wax kañ lay commencer ak kañ lay jeex parce que problème mënul continuer. problème mënul mënul continuer yéen a nga yaa ngi may wax léegi-léegi koy liggéey xaalis boobu noonu tey jii di ko verser li nga xam mooy l'administration des douanes. non liggéey ñu ko mais ñoo koy encaisser yéen a koy encaisser. dem jox di ko di leen ko jox. di leen ko jox tey jii est-ce que du jotul ngeen banque seen loxo tamit. mais mënuñu banque suñu loxo parce que ci ci ci ci ci parce que booy booy lever déclaration bi booy enregistré da ngay dalay dalay dalay exiger pour nga fay promote bi mm. donc tu es obligé de le payer et, et qui le paye c'est l'importateur mm-hmm. l'importateur si ñun la koy jaarale ñun lay xaalis xaalisu promote bi ñun ñoo koy verser trésor public ñun tey yow tey boo nekkee importateur nga ñëw indi sa conteneur manqué xaalis mais man maa lay lebal droit de douane yi donc man ci ma lay lebal fayal naa la promote te yow fayagoo ma mais xaalis boobu ma lay lebal te yow fayagoo ma mais douane war naa am idée xaaj nag ñii kat ñi nga xam ne ñoo ñu collecté xaalis bi nañu génnee benn pourcentage sur sur l' argent collecté jox leen ko au moins organiser leen. est-ce que bu ngeen laajee mënoon nañu am benn banque séquestre boo xam ne toute cette manne financière maison de transit mën nañu ubbi benn banque boo xam ne mën nañu fa dugal xaalis bi ëllëg si biir mën nañu def du social mën nañu am coopérative d'habitat au moins ñi nga xam ne dañu nekk secteur bi yàlla dimbaliwu leen amuñu dëkkuwaay xaalis boobu na jëriñ mën nañ ci créer une une banque mën nañ ci créer une assurance mën nañ ci absorber chômage boo xam ne ëllëg si biir cet argent servir à aider ce président de la République qui est là ce gouvernement qui est là au moins à absorber le chômage. à yaa ngi koy koy wax ci ci ci xaalis boobu noonu nga xam ne moom mooy moom mooy jëlee ci li nga xam ne moom mooy moom mooy Promat bi tey kon bu ñu leen déggee bu baax a baax Promat boobu noonu nga xam ne dañ ko teg tey jii nii yéen seen bopp cest à les agents commissionnaires tey jii liggéey bi gis loo leen seen bopp. mais gis nañ suñu bopp xaalis par exemple ñun bu ñu duggee ñun suñu code PPM mun nañ la wax ñun li ñu encaissé ci Promat mais man mënu ma dugg ci code PPM beneen commissionnaire kooku am na ñoo xam ne ñoo ma ëppale deux fois am na ñoo xam ne keneen da leen ëppale quatre fois y en a cent dossiers l'année na ñuy def plus de huit mille dossiers l'année a des déclarations yoo xam ne la valeur en douane peut faire plus de quatre cent millions imaginez quatre cent millions de deux pour cent rek y plus de cent de transit qui traînent ici ñooñu ku ci nekk yaa ngi déclaré ñi bu bu ñu amee 4000 ñi am nañ 3000 ñi nañ 5000 ñi am nañ 8000 dossiers ñi am nañ 12000 dossiers boo ko calculé la ñuy calculé ci nee naa la manne financière boo ko estimé mën na ëpp plus de 60 milliards. mën na aussi. Mm. ci lañ bokk nag ñoo koy collecté nag. c'est à travers nous que les commerçants les importateurs versent l'argent c'est nous qui collectons. Mm. ñu ñooy lebal ñun ñooy ubbi ay bureau ñooy def connexion internet ñooy fay. Mm. ñun ñooy jël ay employés di leen fay. di dajale ak 2 pour cent di ko jox douane pour seen bànneex ak seen confort mais nañu ci boole. na leen ci na leen ci boole mais tamit administration des douanes dafa am benn volet boo xam ne daf koy def c'est-à-dire xaalis boobu noonu vraiment même bu fekkee des fois dafay dem seen bopp administration des douanes dafa am benn subtilité c'est-à-dire xaalis bi dafay dem ci li nga xam ne moom mooy le budget de l'État te bu demee ci budget de l'État budget bi je pense que c'est pour les c'est pour les Sénégalais dafay ñëwaat ci ñun ñi ñëpp aussi. waaw mmh. mais xam nga <coughs> xaalis boobu demul ci budget Sénégal. Mmh. xaalis boobu ci biir keesu douane lay jëm. directement directement seeni fonds commun la ñoo koy séddoo koy séddoo donc c'est pour la modernisation des douaniers bokkul ak xaalisu état dara xaalisu mm. état mooy droit de douane yi ñuy fay TVA yi taxe indirecte ak yooyu loolu trésor public ba koy encaissé moom la ñuy defee budget du Sénégal mm-hmm. ñun li ñu am parce que nous notre secteur fait 40 pour cent du budget de l'État la des ci yeneen secteur lay génn des GID ak yeneen yi mm. donc les sept mille cent milliards yi nga xam ne moom la état bi di jëm comme budget génneel wàllu ministère des finance et du budget douane fa la bokk seen confort ci xaalis boobu ñu leen voté budget foofu la waroon génn bu ñu demee nag ba créer benn extra fexe ba créer 2 pour cent dugal ko ci léegi importateurs yi di yokkaat di leen fayee 2 pour cent pour seen confort ñu ñi nga xam ne ñoo koy encaissé di leen ko jox dañu war a boole ci programme de modernisation boobu deuxièmement les pour mille yi nga xam ne moom la ñu trésor public di dagg à chaque déclaration booy def préparation trésor mais xaalis boobu commissionnaire agréé ñoo ko moom depuis que ça existait le trésor public n'a jamais reversé ce, ce montant-là au, au, au commissionnaire agréé te suñu chiffre mille yi ñoo ko moom ça a été écrit et libellé que les chiffres au commissionnaire agréé en douane le trésor public ne l'a jamais fait gis nga ce pays-là suñu bëggee mu dox dañ ko teg sur des rails nañu appliquer la loi dans sa rigueur ku ci nekk la nga war a def nga def ko bu fekkee ne dañu jël manne financière teg ko au-dessus de tout di def cavalier seul

ñi xañ ko ñi parce que bu fekkee ne DGID ak douane dañu am ay fonds commun te yeneen département yi amuñu fonds commun y' a problème si daa rebondir ci wax la par exemple le PROMAT tey bi nga bu fekkee ne waa ministère de l' éducation nationale dañoo xëy ñoom tey dañoo bëgg a am benn programme de modernisation des enseignants mhm. inscription yi ku daan fay léegi dix mille francs quinze mille ngay fay cinq mille yooyu foofu ñoom ñoom enseignants yi ñoo koy pour seen confort mhm. ça va devenir yi Euh, su fekkee ne par exemple euh, yeneen corporation yi ku ci nekk da ngaa créer sa modernisation. def loolu bu yàggee réew mu ci pëcc foo lay jëm. pourquoi on l' accepte à la douane on l' accepte pas te ñooñu ci ministère la ñu bokk am nañ ay fonds de promotion yoo xam ne moom lañ leen di voter pour pour pour seen bien te douane am na ko au au niveau du ministère des finances. pourquoi encore beneen fonds ñëw dugg ci muy muy Promat ñuy jël 2 pour cent yi xam ne ñoom kese ñoo koy féetewoo ci nit ñi nga xam ne ñoo koy seq commerçant di ko liggéey di ko encaisse leen ko jox te ñun mënuñu ci ci am mais tam dafa am leen loo am daf daf see am aussi ñoo xam dañuy liggéey tamit ci xaalis il faut tamit ñu xaw a nekk à l'aise pour naa pour les protéger moo tax ñu créé programme bi pour ñu mën a dem am seen modernisation nekk seen confort mais 2 pour cent yooyu ñi ngi ko séqal ñun ñi nga xam ne lépp ci ñun lay jaar dañ cee war a bokk mm-hmm. non on exige qu'on nous donne 0,5 pour pour cent ñun aussi dañoo war a moderniser wu les commissions en train dañu war a moderniser wu dañu war a yokk suñu personnel dañu war a defar suñu secteur war nañu am ay banque war nañu am ay assurance war nañu am ay cas ay problèmes sociaux yu ñu war a régler war nañu am ay logement te ngay gis fii transfert boo xam ne day feebar dañ koy mujj ketal di ci ay difficulté ngay gis ko xam ne day nekk ci port du matin au soir pendant plus de trente ans il parvient bu ñu ko joxee mën nañu créer benn GIE des transitaires ut suñu benn banque wala suñu benn assurance di fa verser globalement li ñu 0,5 pour cent yi ko defee au moins ñu mm-hmm. yi nga xam ne dañu am ay problème de formation. ñu ubbi ay salle leen ci former. Mm-hmm. ñi nga xam ne ay coopérative de village amuñu kër ñu mën génn ci xaalis boobu lebal leen nit ñu tabax kër. Mm-hmm. ñi ci feebar ñu mën leen évacuer faj leen. que booy liggéey ak ñoom ngeen bokk secteur xaalis bi dugg la seen biir. mais ñu te ñuy jaar si ñoom di ñëw si yow nag demee da leen ci war a boole. dafay dafay indiwaat débat un peu sur la collaboration entre yéen ak ñi nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy les mais damay avancer un peu ñëw aussi li nga xam ne moom mooy a exercer ne seen mm-hmm. activité tey jii xaalis boobu noonu aussi est que yéen a ngi ciy gis aussi seen bopp aussi. laal nga point bu sensible c'est le conseil discipline de la douane. Mm-hmm. bi nga xam ne dañ ko créé yàgg na ça fait plus de vingt ans maintenant. c'est depuis au temps de Wade. Euh, li ma gën a jaaxal nag ci conseil de discipline bi mooy la douane moom ci boppam dafa bokk ci biir conseil de en tant que administrateur. donc ñoom conseil d'administration ou conseil de discipline bi ñoom ñoo ko gérer. donc ça veut dire ñun li nga xam ne mooy suñu corporation même kañ fay fal président sax douane a koy fal. muy muy muy muy premier cas. deuxième cas bi mooy en matière de discipline douanière la douane est tellement outillée. quand tu regardes le code des douanes nga xool fa mu commencé ba fa mu jeexee amul article bu gën a répressif sa morom donc en matière de discipline pour les commissionnaires agréés en douane douane teg na ce qu'on appelle le code des douanes pour pour pour pour wax la rek que le code des douanes est plus dur et plus véroce mm-hmm. que le code pénal. est-ce que xam nga en matière de transaction douanière bu ko douane lancé. Mm-hmm. même le juge ne peut pas sur le dossier. Mm-hmm. parce que c'est c'est une affaire économique. dëgg la donc loolu état bi danañ ko protéger ci seen côté. léegi nag kooku yow lan ngay doyee conseil de discipline boo xam ne ay transitaires ñoo ko créé pour di àtte seen moromu transitaire yow kuy jooy mën naa nax kuy jooy. mais mënut a nekk. mais est-ce que du aspect gis ñu ne maison de transit bi conseil de discipline bi contrôle nañ ko jàpp nañ ko sanction sanctionné ko benn. comment c'est possible que chaque année chaque commissionnaire agréé en douane donne trois cent mille francs pour am am am mieux levé cette manne financière là une décennie rek laay demandé ñu defal ñu enquête wax ñu trois cent dix mille francs yooyu ñu doon enquête trois cent ñu doon pour chaque maison fala man de li ma ci xam en dehors des séminaires de formation yu ñuy def mm. te deux ans yi ñu génn sax amul séminaire amul forum amul dara mm. trois cent mille francs yooyu fa la naa nag aussi jël nañ ci benn kër fële euh, pompier mooy oda yi xaw ma mm. yu yu yu marocain yi benn yeneen benn appartement def ko ay bureau bu ñu xëyee dem toog fa gérer seen problème léegi cette manne financière là fan lay dugg. mais tey xaalis boobu noonu kan moo ko kan moo ko kan moo ko moom aussi war nañ ci war exactement. kan moo ko parce que yéen sunu xaalis la yi. ñoo ko moom da ngeen koy joxe pour exercer l' activité wala da ngeen koy jox. dañu ko imposer on nous impose que boo joxewul trois cent mille boo amee levé. te boo amul un main levée l' année prochaine tu pas déclarer léegi nag comme dañu koy imposer ñu leen koy jox. 300000 francs yi suñu xaalis la war nañ ñu wax chaque année fan la ñuy defal bilan financier. ñu defal leen auditu xaalis boobu. voilà wax nañ ñu xaalis bi fii la bi ngeen ñu joxee 300000 on a encaissé par exemple 300 millions 300 millions yi dem nañ ci lii def nañ ci lii def nañ ci lii def nañ dañuy defar rapport financier annuel mais amul lu ñu gis fa bi jaar. conseil d' administration ba doy nañ fa biir toog président conseil ba doy koy fal. mais y a une boo xam ne bëgg nañ ñu defal ñu au moins une audit rapport wax ñu lan moo xaalisu conseil de discipline boobu fu jëm ku koy lekk kan moo koy utiliser ak fu bi ñëw. plus de transparence ci wàllum may levée boobu gestion bi. Mhm. dañu war a di transparence ci wàllum gestion conseil de discipline bi te man gisuma importance am man je vois pas l' importance du conseil de discipline. mais itam mënoo leen exercer aussi l' activité pour autant aussi. mais la douane est disciplinée la douane nous a donné. en code des douanes boo xam ne tous les articles répressifs yu discipliner commissionnaire agréé en douane mu ngi ci biir lan la ñuy di taw benn conseil de discipline boo xam ne yow transitaire bi yow yaay dem àtte sa morom transitaire mhm. je ne vois la pertinence man je me dis que on a pour créer une manne boo xam ne quelques personnes ñoo ñoo ñoo koy grignoter parce que man mosuma gis rapport financier bu jógee conseil de discipline moo tax man leen fukki at yi ñu génne nii mhm. au moins fukki at ak ñaaru Macky Sall yi 12 ans yi nañ ñu auditer au moins 300000 yi gars yi doon versé chaque année. xaalis boobu ñu xam ko. ñu demaat ci ñaari mesures yi nga xam ne ñoom mooy mesures yu gën a am solo je pense que mooy débat bi ak li nga xam ne mooy la DPI yi nga xam ne je pense que tegoon nañ ko bu yàgg mais fan yi gis nañu vraiment ñu defaat ci quelques réajustements tey jii nii d' abord ñu ñëw ci li nga xam ne mooy dématérialisation boobu noonu nga xam dañ ne c' est gën a gaawal li nga xam ne moom mooy liggéey bi tey jii de est-ce que gën naa gaawal liggéey bi ci wàllum transitaires yi ak ñi nga xam ne moom mooy les agents commissionnaires. bon dara changé wu fi. Mm-hmm. daal disparaître na papier bi ñu daan déclaré këyit yi ñu daan gàddu document yi vertu yooyu di ko yóbbu daal di di passé. Mm-hmm. këyit yi moom disparaître na mais dans le système de fonctionnement entre rapport. Mm-hmm. déclarant et douanier. rien n'a changé. boo jógewul fii sa dossier boo ko déclaré woon. boo demul section dossier ba kenn du ko valider. kon boog dématérialisation ci ci ci. ci këyit bi dong la yem mais procédure bi. Mhm. dara soppeeku ci. contact bi daan am démb moo am ba tey. Mhm. jokkaloo bi daan am démb moo am ba tey. mais dina xaw a gaawal aussi liggéey bi. dara gaawu ci këyit yooyu ko doon dara parce que le système n'est pas le système n'est même pas encore huilé. Mhm. y a des difficultés y a des pro y donc ça veut dire ne même dossier bi nga daan gàddul sa bopp yow du dugg ci bureau yi porte à sax moo gën a gaaw actuellement demat et j'ai regardé la cellule de communication de la douane dem toog ci ay plateau télé naan wéy demat bi léegi c'est plus rapide da ngay dugal sa dossier à l'espace de cinq minutes nga bon mais c'est faux ça se passe pas comme ça est-ce que du yéen yéen yéen yéen est-ce que du yéen transitaires yéen a mën a yéen ay wax ne non il faut que les gens am na am na problème mais ñoom de la donc avancé la boo xam ne ci wàllum liggéey bi non tout le aspire au développement de la science de la technologie bravo si le démat est là ça ne nous dérange mais que les gens aient l'habitude de dire la vérité sur ce qui se passe gis nga nit lu mu métti métti waxal dëgg quand tu dis que ne boo dugalee sa dossier à l'espace de cinq minutes nga am bon mais c'est pas vrai il y a des lenteurs administratives voilà dama ne la papier bi moo moo fi jóge mais système bañ daan liggéeyee jógewu fi et autre chose quand on dans le système numérique boo dugalee déclaration le chef de visite le chef de section et le chef de bureau et le ne doivent pas savoir quel est l'importateur à qui appartient ce ce ce ce, ce, mm. donc waruñu xaar kenn pour pour pour, pour traiter ko dossier. Mm-hmm. dafa mel ne booy def bag rek. waaw ba rek lañ lay jox. ki lay corrigé xamul kan la alors kon du am lenteur. Mm. mais su fekkee ne yow da ngay gis numéro yi affiché wu yow ci sa ci sa ci mm. il faut client bi moom dossier bi ñëw pour nga doog ko valider mais ça dire que le système n'a pas changé. papier bi rek moom moo fi jógee et autre chose moi je propose à l'administration de Diohane de supprimer le chef de section quand on est dans domaine de section a yéexal liggéey bi. Mm-hmm. chef de section amatul njëriñ. Mm-hmm. demaat la numéro mooy fixé na chef de visite di visualiser dossier bi su baaxee ma côté ko directement vérificateur bi mu joxe bon bi. chef de section amatul njëriñ la section d'écriture c'est pour la documentation nga gàddu dossier dem. Mais du moment que les documents sont rattachés dans le système, le chef de visite, quand il ouvre la, la déclaration, il voit toute la documentation, chef de section amatul fi chef de section amatul il valide le dossier il le passe au vérificateur mu joxe bon bi il y a trop de lenteur dans le système le démat est là il est bon on aspire au développement de la science de la technologie dans la rapidité mhm. mais c'est pas encore rapide mhm. et il y a des façon boobu moo fi nekk ba tey. moo fi nekk ba tey kon boog ah. demaat demaat c' est ce n' est que de. que de de non que de non honnêtement l' instant pour l' instant ce n' de non peut être avec le temps il y aura des des dans la procédure. Mm-hmm. dans la rapidité. espérons espérons que dinañ dem ci dinañ dem ci loolu ñu ñëw rapidement ci li nga xam ne mooy la dernière mesure bi nga xam ne ñoom ko maanaam déclaration préalable d' importation nga xam ne dañ ko jëlee ci 1 million wàccee ko ci li nga xam ne moom mooy moom mooy 500000. Mm-hmm. beaucoup de gens pensent que dafa gën a gën a gën a contraignant mais ñoom ci seen déclaration ne nañ vraiment nekkul dara mais c' est un outil tout simplement de contrôle donc ci li nga xam ne moom mooy dugg ci ci ci réew mi aussi. xam nga du xam nga depuis bëggatuma ci sax wax parce que j'en ai assez parlé wax naa ci à deux à trois reprises mm-hmm. gis nga les transitaires et les importateurs amuñu problème ak mm-hmm. le problème qu'ils ont c'est que pourquoi prendre le montant descendre le montant de de cinq mille à un million ah ñun dañ jàpp ne mm-hmm. dafa am benn structure douane administration douane bëgg a enrichir muy ban muy Orbus

état du Sénégal la doon perte avec les institutions de Bretton Woods di ko imposer état du Sénégal parce que nag à un moment donné la douane était faible sur le plan du contrôle la douane avait aussi des difficultés l'état avait des difficultés pour contrôler la corruption qui se trouvait au, niveau de la douane looloo tax ñu indi le programme de COTECNA muy programme de vérification des importations en mm-hmm. on vérifie la nature le nombre de colis le poids et la valeur pour que bu ñëwee fii fraude bi doo dootul mën a exister bu ñu demee ba ci biir même la l'administration douane voulait à un moment donné torpiller le le le le programme de de de Cotecna. Mm. d'ailleurs ñoo ko xeex xeex ba ba Cotecna jóge fii. et quand ils ont créé maintenant Orbus en mars 2005. Mm. c'est Karim Wade et Boubacar Camara qui étaient porteurs du projet quand Maître Wade était là. bi ñu tëggee projet bi on a créé Orbus Orbus ñu jël ko def def délégué ko sur la substance du du Cotecna. mu koy gérer ñoom moom mu koy gérer. mais au début Orbus bi dañ daan depuis dañ daan fay ay ay ay deux mille cinq cent. dix mille francs maximum. Mm-hmm. Orbus il est venu il est passé à la vitesse à la vitesse supérieure. donc quitté de les dix mille francs quinze mille francs ba tey presque boo xool boo xool ak TVA bi day àgg presque dix huit mille francs. dix huit mille francs alors quand tu faisais un million. Mm-hmm. tu faisais par exemple dans l'année supposons cinquante mille dossiers. mais quand on descend de 1 million à 500 000 tu vas faire 100 000 dossiers. tu vas faire 100 000 dossiers bu nekk 20 000 francs c' est une manne financière. alors quels les principaux personnes qui se cachent derrière Orbus. Hmm. à qui appartient Orbus parce que Orbus si GIE Gaïndé 2000 la nekk génne nekk benn plateforme boo xam ne am nañu ko moom. il y a des tierces personnes qui ont dedans. Ibrahima il a une masse financière dedans à mhm. l'intérieur. yaa ngi laal laa ngi laal beneen yaa ngi laal beneen problème mais oui parce que loolu la. loolu mhm. pour wax la li indi DPI bi. Mhm. pour ñun dañu jàpp ne DPI amuñu problème moom. parce que DPI ñetti fonction rek la am. document de recevabilité document de domiciliation bancaire. ak document boo xam ne day permettre l'État du Sénégal en fin d'exercice mu def les statistiques. sur la quantité d'importation annuelle. loolu mooy bu fekkee dañ ko bëgg jëlee un million. indi ko 500 mille je ne vois pas le pourquoi. Ah, amoo leen ci le pourquoi léegi beneen cas. Mm-hmm. ki nga xam ne dafay dem Turquie mbaa mu dem Dubaï. Mm-hmm, mm-hmm. nga xam ne day indi conteneur. mën na ci am lu mat 20 fournisseurs. wala 30 fournisseurs. fourni facture bu nekk ëpp si 500000. bu ñu doon koy wax mu defar te 30 DPI. DPI bu nekk ku que 20 000 francs. loolu boo ko ko facturé. da koy dugalaat ci prix de vente. da koy dugalaat ci ci en ñu ngi lay voilà les les les difficultés. mon frère ñu ngi lay remercier bu baax a baax. mais bi ñu impacté woon Ibrahima. tout à jeex na xanaa ñu jox la kàddu gi bu fekkee da ngay def benn mot rapidement. ñu mhm. tëj. voilà di nuyu euh, waa UTPS yëpp. Mhm. en l'occurrence euh, le coordonnateur euh, Ablaye Lo di nuyu mon frère aussi qui est le chargé de la documentation et des affaires juridiques monsieur Bira. Bira Ndiaye l'homme de Bira Transit di nuyu tous les membres xam nga yi nga xam ne ñoo nekk biir ITPS e di leen ñaax den góor on avait fait une journée de réflexion le 20 mai mm-hmm. programme yi yëpp donc ñu on est en train de faire un mémorandum boo xam ne on va donner ça voilà aux mm. pour ñu xool ko xulawuñoo xenn xeexuñoo kenn jotewuñu dañu bëgg réew mi tegu ci yoon mm-hmm. Sénégal nag boo fi nekkee di wax li nga xam ne moo métti ci réew mi mm-hmm. ku nekk yaakaar ne da nga koo noonu wala da nga bañ wala kenn on se bat pour des principes on ne se bat pas avec des sant ñëpp di gëre ñëpp. merci beaucoup merci beaucoup Ibrahima Khalil Diène moom la ñu dalaloon tey ci émission avocat nga xam ne moom mooy chargé de communication UTPS maanaam union des transitaires patriotes du Sénégal waxtaanee un peu ci secteur du transit wax aussi difficultés yi nga xam ne ñoom la ñuy ñoom la ñuy jànkonteel mais aussi problème yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ñoom ak li nga xam ne moom mooy moom mooy la douane donc remercier la bu baax remercier équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndool ci moo nekkoon ci montage ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier merci beaucoup